momo ibe dawada yakata ye molu nene ye molu nati imanyana kala molu bayelati ali imanyana kala molu kam fantalati niyoke isi patiyo balundino bari imanyana kala patiyo falati kam mo kam fandulati ka patio fal diko si ikam wolle bay patiyo dun akida ngini molle la so wo molu inyanta wolle ka fandale fa nyanta wolle kumande yo woto kontanta kana si ka diam na kansulo toyala e, ee, e ee, fulabanta wodo to mbemwol kontonla jan min keta sefoti anina député o e yoro e yoro mc mbalo ani oumar diallo faw kata kata commission a kata malan sayboñolu mbe kontonla na kontontoro biye ga mbe duwale fanan sima ala ni jata kende ala anin place o nga ñimilu toon bon fanan nga dun mbe duwale fo ala si place o tambinliña sambaña sonel diye kantu ni place o ɗi moola na sambaña man sonenda sonaya toon ita jeynola bari ni place o ñi ngi wax si turu alaaji Géey alaaji Abdou Géey taxawal ñu indépendant lim ñu taxawalee lépp ñu ngi sant yàlla ngir ne bëgg avantage la suñu réew mi rek di woot ñaa nga bantang ak ñi ñu war a woteel ñu ngi ñaan yàlla di ñaan si ñi nga xam ne ñu ñoo ñu war a woteel ñu ngi ñaan ñu woteel ñu ndax ngañ maay moom yàlla moo koy def kum ko jox rek am nga ko su dee yàlla jox nañu ko alhamdulilah bu dee keneen ku mu ko jox alhamdulilah ñun xut rek moo ñu war ñu ngi xut ngir dimbalante ak mbokk yi ngir dimb lu suux si biir woot bi ñu jëm ko suqale ak nu mun a demee amul nag lenn loo xam ni fas nañ ko yéene def si muy luy nitu lu ñuy gorajal wala luy fitnaal réew mi loolu yal na ci yàlla musal réew mi yëpp lépp luy waral fitna rek yal nañu ci yàlla musal waaye ñu ngi sant yàlla di sant euh, rajo bi di sant ñëpp. di sant télévision bi di sant ñëpp di ñaan yàlla réew mi yal yàlla def fi jàmm Afrique indépendant bi daal moo ñu tax a jog li alaaji Abdou moo jóg moo ñu sampal moo ñu taxawal indépendant lim ñu taxawalee na ngir dimbale ñu dimbale réew mi jàppalante ak képp ku nekk ci réew mi ci jàmm ak salaam lépp luy war a nekk fitna ci réew mi yal nañu ko yàlla dàqal dàqal ko pépp julit dàqal ko pépp ku nekk biir Gambia lii daal lañ amoon liñ ciy wax te di laan leen jërë ngeen jëf yéen waa rajo bi jërigeen ngeen jëf yéen waa télévision bi. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil nga ala tentu nga kiila tentu nga nawlulal tentu nge jayi eh, mbe allahu taala so tentu la o men nga kendi eh, o sanjilol tambila folo nte janko sisen te lamunu ward counciloti paconki ward ntarta jewo sanjilulo fo ala yake sanjilulo banta ala en dundi sanjilulu fulanñaw kono sayimbe na wala commencé la ten e eh, hadamadiŋo de ni yaje mool be mool be tombon nayi be kala place o to jikko la ya kende o sanjilulu folo ŋakkata ku jamale ke banko kan ŋayiri wa jamale naati je mais mais yirwal men ya lon ko dandulate la o dalilo ya kende mool le jikko sotonto i murta yen say place o to kotek Eh, hadamadiŋo sila saŋ foloo niŋ moolu be tomboŋ na moolu le ka deŋ ye tomboŋ ye ke palasoo to bari saŋ fulanjaŋo i faŋo le ka i faŋ si palasoo to yo wo le beteŋ wo le ye a kendi wo jikoo meŋ moolu ye moolu ye a sotonto ŋa wo jikoo le ye a kendi moolu murta kote ke yen tomboŋ o kamma la mbe eh, alhaji demba thiam ana la executive committee o mbe tentu la mbe jayi la mbenna chef ba eh, tentu la mba jayi la na dibido fana mbatten to lamba jayla e e eh, lanno men soɗon fo ala sa kende o jikoñin si wottimmandino haɗamadiŋol ni ɓe carte fayla i ñanta fayla dalilale kam i kanañin jibe don ñine diyatante mbeta walla walla kanañin jibe fanan ko nteni karlem si kilinte si fatan fan so on sa katanga wo bonna kuwol kon o ka banko sey komal ɗin banko mbele wuluta banko kam mbele ɓe kañandin fula mandinka jola serer mbele be di bankol especially ntela wodo flol ni mandinkol kol be je otuma mbe mbadin flol danila isake alana la kila si fatam fanso isio bondi la kol kon ni ni mbe mbadi mandinkol fan dan la wonyol ni ngoke dok mbeti nyaaro kel That's Mr. Hamadi Tamba from Sintet Village, an independent candidate who is sitting here with you today to join ideas. I am here by saying that people need changes, at least we change for betterment. I am also urging the youths and ladies of Pony Jarol, especially Sinted Ward, to cast their votes to my ballot because I need to make changes whenever you cast your vote to my ballot because we have to change in the sense that I have a lot of aims and objectives that I want to achieve by the support of the youths and women of Fonyi Jarol, especially the synthetic word women and youths. That's Fonyi uh, eh, Jarol, Kamanga, Kalaji, Burumang, and Sintet at large, because these are the people I'm going to work with to make sure that what we are all aiming for will be in success. I am also saying that if you give me your votes, there are certain things that or difficulties you are facing. It will all be what solved out. I am hereby giving thanks and praise to the youths and women of Sintet Ward who rallied behind me in the day of the nomination and who rallied behind me during the nomination process at Brikama alongside Sintet because they left everything that they have been doing to give what support to me, to convey me from Sintet to Brikama. I am saying thank you for the strength and support you gave me. I am also elaborating on what the projects that I want to bring in to Sintet Ward, because there are certain villages in Sintet, they had the projects, but they were not considered. So I am saying to you guys that give me your votes and any project that was taken away from others to, from your areas, I will make sure that I bring those projects back to your area. I am also saying the youths of Fonyi Jarol or Sintet Ward at large, I am behind you today and also behind you tomorrow because whatever I am doing, I am doing it for the benefit of the, what, of the youths of what Sintet Ward. I am saying Jarama to you all. Abaraka, Jerejef, thank you to you all. That's Mr. Hamadi Tamba. Getting frustrated with your mobile internet with Qcell's fast, reliable and affordable 3G internet, you can use the internet the way you want, when you want and wherever you want at unmatched speeds. You can have access to all your favorite sites and applications like WhatsApp, Skype, Facebook and Twitter. With QCell, you can stream videos and download the content you want effortlessly. QCell Mobile Internet. Stay connected. So duñ dem màggal waaw lu tax loolu te yaara flavor drink dafa neex dafa neex waaw waaw wax leen ma ci flavor yi ma dégg ah. an orange laa bëgg man pineapple laa bëgg te tiara flavor drink moo ma sawarloo tiara flavor drink xale yi bëgg nañ ko te itam mag yi bugga nañ ko ñëw na si juróom benn fosami flavor pineapple pineapple coconut berries